asalaamaaleykum alkaali aleykum salaam waaw ah, ñun la waa Gambia Swimming Association Swimming Association waaw so at bu nekk dañ fi dee ñëw pour célébrer la ñoo a Aquatics Day mm-hmm. te tamit si lañ si dee defaale mooy pour jàngal nit yi ni ñoo féeyee ak naka la ñoo ah, ah, comme ni koo xam ne dafa war a lab si géej naka lañ ko préventé nga xam ne bu mu lab dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko daan def daal at bu nekk mm-hmm. waaye yoon parce que Euh, coronavirus bi so mhm. loolu dafa gën a tax bi nga xam ne loolu yëpp mënuñ koo def mhm. euh, ngir loolu moo tax bi ñu ne léegi li ñoo def mooy mhm. place yoo xam ne foo lañ dee dem di di def suñ suñ programme si ñoo xam ne ñu ñu doon ñëwal nañ leen demal ñun tamit ñu euh, jox leen ay max yoo xam ne nañ ko mën a use na la na lay mën a njëriñ te at sen same time tam ñu wax leen affaire yi feebar bi te feebar bi feebar dëgg lu am la so suñ tànkam fii mooy naka la ñoo bolo, a bari, mugi bi mu gëna fi. baax na sen naa wax ah gis na sen tanka te xamna tanka bu len taxaw pour rew parce que li am lu baax la nga ngeen di def lu baax waxatuma la nak mu tombé affaire yi Covid 19 bi te su fekkee ne bàyyi ngeen seen soxla pour ar dom adama yi ci adina si waxuma la ci dëkk bi rek waaye yéen a ngi wóor pour dem aar àddina si parce que tey nit ki fi muy toog ak fa muy jëm ak ka mooy àndat xamuloo fan lay em lii dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a taxaw pour aar suñ njaboot gi aar nit ñi aar mboolem koo xam ne yaa ngi ci réew mi fii ak ku newul ci réew mi lii moom yàgg ngeen di ñëw fii di yóbbu xalé yi ñuy def compétition ci geej de gis nañ né lu baax la yéen a ngay jangal xalé yi fey pour ñuy sowé sen bakan loolu yépp lu baax la waye ñu nit wa baara mom li ñu mëna def rek jërë jërëjëfal leen né li ngeen def ni ngeen continuer ci ay xalé ngeen te solo fi joggé tamit dafa da ngeen a jàngal xale yi li nga xamné ne yeen solo fi joggé ko ñi leena tek over mëna def li ngeen a def ñu topo sen tankay ci lu baax jërë jëf yalla leen yalla fay jërëjëf jërëjëf alkaali jërëjëf soo léegi lañu def mooy comme ni ma la ko waxee woon dinañ génne max yi ñëw jox leen incha allah. waaw waaw wax na Good morning. Uh, my name is Mohamed Bute, the Vice President for Admin and Finance of the Gambia Swimming Association. Uh, today we are continuing the distribution of marks and we are currently at um, Tanje. And, um, for this event, uh, which is the World Aquatics Day, usually we celebrate it in our own way by organizing swimming um, competitions and at the same time doing sensitization about swimming and drowning. But unfortunately this time around because of the coronavirus um, we are not able to do the usual activities that we do for the World Aquatics Day. And uh, we choose to do it in a different way, that is by uh, donating face masks and um, uh, to, to our stakeholders and at the same time also by giving sanitizers, hand sanitizers and face masks to our swimmers and coaches. So today we're here today to give face masks to uh, the alcalde of the village uh, and um, to the VDC. Uh, this is this is the reason for us coming here today. I'll just leave the alcalde to say a few words and the others if they have. I welcome you all in this uh, uh, village and uh, at the moment we are at the big side of Tangi and I appreciate uh, uh, your gesture by choosing my village to donate these uh, uh face masks. Though we celebrate the events at the normal way, but this year it coincides with the coronavirus and uh, we, uh, we have no option. Then the, the option you people choose is the best way by giving us the face masks. And uh, it's a way of saving life that we appreciate it and we thank you for this gesture. So first we start by distributing um, face masks and uh, hand sanitizer to the alcalo of the village and that is the face masks and the hand sanitizer for the alcalo. Thank you very much for receiving this face mask from you. Thank you. I appreciate you. it. Thank you.